وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد المكمل وعلى آله وصحبه زير الرضوان والتمكين جنا وبينو نيالا لي كليفا يوم الشيخ محمد المنتقى سونو بروم يغال كو سي لور دي ماي كو نوي ام ديك تي دي تيو دي بيسو سانت الشيخ القديم بي دائره الفتح والغفار di def jagleel ko fàttali li nga xam ne mooy li Sëriñ Saalix Mbàkke radiyallahu anhu daan wax li nu fi indi bàyyi na muy yàlla sunu borom te loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu Sëriñ Tuubaa woo ci ñu ànd ci ak moom kon ci fàttali yooyu ci lañ tënk tomb boo xam ne ni ko

day mel na day taxaw sa kanam doon gàllankoor léeg-léeg ci yow wala doon loo xam ne sax doonte mën naa am njariñ waaye ak mën naa am lor yoo xam ne mën na laa gàllankoor ci saw doxin ci yàlla loolu nag xëy na léeg-léeg mag ñu bari dinañ ci mucc waaye ndaw ñi ñooy nekk cible bi nga xam ne ñoom ñooy gën a nekk ci barab yu gën a glissant yoo xam ne ci ñoom daal la défi yi di gën di gën a di gën a yàpp kon loolu moo tax ñoom ñu tànn sujet boobu ngir fàttalente fàttalente rek lay nekk ñu bëgg koo tënk ci wax waxtu yu gàtt yoo xam ne dañuy ubbi ay bunt rek ndax gannaaw barabu jàngukaay la te ñi may waxalit jàpp naa ne ñu ci bari mën nañ maa gën a xam dëgg-dëgg sax mbir mi moo tax soo ubbee bunt rek yi ci des xel dina ko mottali léegi thème bi comme ñii ñu ko gisee ñu bind ko ci ginnaaw noonu lañ ko tënkee la jeunesse face au défi de la mondialisation mondialisation moomu nag buñ ko waxee manees na rek ci tënk day doon loo xam ne day day contribuer wala boog day feeñ bu baax a baax a baax ci gaawaayu doxiinu jamono ak it yombal échange maanaam yombal jëflante ci diggante ñu wuute moo xam liggéey ay liggéeykat la moo xam dafa jaar ci wàllu technologie wala sax yenn pratique culturelle yi maanaam day doon loo xam ne rek man nga ne day yombal ab jëflante ci di ci ab diggante ci ab diggante diggante ay réew diggante ay xeet yu wuute indi it ab développement ak relation diplomatique bu ñu waxee kon mondialisation mooy loolu mooy li nga xam ne léeg-léeg bu ñu xoolee maanaam ci ginnaaw siècle ci ginnaaw doonoon na loo xam ne lu jafe woon la te metti woon lool te léegi mu doon loo xam ne lu yomb la ci ay interaction yu bare bare bare nga xam ne day mel ne man nga ne rek xéewal la goo xam ne sunu borom daf koo defal waa mujjug jamono waaye ci biir xéewal gi it lu sëñ Touba doon wax naan ni'matun fi tayyin niqma da ciy am maanaam dina am ay profil yu bari yu ci nekk waaye noonu lay amee ay jafe-jafe yu ci nekk yoo xam ne bu dee ndaw lu defar wut nga wala ndaw lu amut kilifa rek tombe ci daf lay yomb kon mondialisation bu ñu koy wax xëy na lu doon loo xam ne ni ko ñenn di defee mel na day day lu baaxut loo xam ne tubaab yi dañ ñu koo indi rek déedéet am na lu baaxut waaye am na lu baax mënees na cee jëriñu mënees na cee loru kon mel na ne bu ñu nee mondialisation noonu rek la maanaam loo xam ne day gaawal jëflante ci ay diggante muy loo xam ne nag ñu bari la xëy na euh, Maodo bi niñ ñu ko tënkee dafa dafa dafa dafa. past waaye mënees nañuy génne yu bari yo xamné ne li fi li feeg ñuy defi jant di waxtaan di fàttalante saa su né mën nay ñëw masalan mondialisation buñ ko waxé amna ay différents aspects manam amna ay barab yu wuté wuté mané sa wax mondialisation ci walu économie mané sa wax mondialisation financière mané sa wax mondialisation culturelle wala mondialisation politique

mooy yi nga xam ne moom moom la ñuy gën a jëfee ci barab yu mel nii ci ndaw yi te mooy mondialisation culturelle ak mondialisation sociologique bu dee mondialisation culturelle boobu bokk na ci man nga ne bokk na ci li gën a indi fii ñu toll nii yàqu-yàqu yi am ci àdduna moo xam yàqu yi jikko la wala lu ci doon wala sax euh, crise de maanaam dem ba ñàkk kilifa gi xew léegi man nga ne bokk na ci li ko indi wala boog participer na ci bu baax a baax a baax baax eh, te mu xew lool fréquent lool ci ñi nga xam ne dañ leen a war a yilif mooy ndaw ñi nga xam ne dafa dafa dafa dafa feeñ lool ci ñoom léegi daanaka défi bi nga xam ne mooy gën a nekk fierté ci ndaw mooy luy wane ne yow mii kat mën ngaa demal sa bopp te doo am kilifa te loolu boo xoolee lu ñu àbb la te mondialisation bi mel na ne boo participer na ci bu baax a baax a baax ba loolu mooy am léegi te li ëpp ci ñaare ñi nga xam ne ñoo koy def man nga ne fi fi muy jaaree ci ñoom mooy barabu jàngukaay yi mooy ci e, maanaam école euh, laïque yi ecole tubaab yi ngeen jéggal ma waaye lu ci baree baree bari fa lay jaare donte xëy na léeg-léeg yeneen barab yi mën na faa jiyee waaye lu ëpp daal mel na ne ci barab yooyu lañ ko gën a seetlu ndax bu ñu xoolee Sénégal ak Afrique waaye Sénégal en particulier bi tubaab yi duggee bi ñëwee ci suñu réew mi dafa bokkoon ci seeni objectif seeni jubluwaay mooy nuñ mën a fexe ba soppi suñuy jikko maanaam def nu ay tubaab yu ñuul liñ naan peau noire masque blanc mel na ne loolu seen jubluwaay la woon nga xam ne danañ dem ba nit ki moom boo xoolee jëmm ji tur wi tur wi rek mooy jullite wala boog askan woom boog waaye moom ay jëfam ak melokaanam dëgg-dëgg sax man nga jaa bañ a gis daray jullit loolu dafa bokkoon ci jubluwaay yi nga xam ne moo taxoon tubaab yi ñëw fii ngir soppinu saf te loolu soppi googu nag la ca gën a gaaw mooy tabax fi ay da ay ay jàngukaay maanaam tabax ay école école ngir former nit ñi nga xam ne dañ leen di former ñoom ca nañ ko bëggee buñ demee ba mënatuñ leen a fii ñu doon ay yéefar tamit nañ fexe ba def leen ñu nekk ay mauvais musulman loolu am na ku ko waxoon ci ñoom kon dafa mel ne jubluwaay boobu daf leen a ñoroon mooy bu ñu xoolee rek xeeti nit yooyu ñu njëkk a jàng ñu njëkk a jàng euh, tubaab ay jamono daanaka ñu baree baree bari wala ñu njëkk a jaxasoo tubaab yi noonu lañ daan mel mooy ñoo xam ne rek mën nañoo yor turu jullit waaye bu weesoo tur wa seen lenn du yëfi jullit mooy ñi sëñ Tuubaa daan wooye almutanassirin almutanassirin mooy koo xam ne mën nga ne rek ak kéefër kéefër tubaab dafa lekk ab xolam ba daray ngëm mënatu koo am boo xoolee ci ay mbindam da koy wax lu baree bari naan sunu boroom musal na ci bind lii ci ñi nga xam ne ay mutanassirin lañ ak ñi nga xam ne ay nasaraan lañ fi mel noonu kon fexe ba def def waa réew mi ay mutanassirin mel na ne bokkoon na ñoom ci seen objectif wala seen jubluwaay bi nga xam ne mooy bi gën a bi gën a mag ñu dalal bu baax sëriñ Abdoul Fatah Mbacke moom sëriñ Abdourahmane moom sëriñ Cheikh Fatma di ko ziyaare bu baax kon su ko defee loolu mel na ne colon yi fi ñëwoon mooy tubaab yi réussir nañ ci lu ba nga xam ne ni ma ko waxee léegi ñu njëkk jàng tubaab ci réew mi daanaka ñu ci baree baree bari seen jullit euh, la yàlla xam doy na loolu nga xam ne moom la tubaab yi def nag mel na ni ci jamono ji ñu nekk nga xam ne ci la mondialisation bi gën a amee ci la gën a yombee ndax li ci yéeme mooy bu njëkk ñoom tubaab yi dañ daan bàyyikoo ci seen i seen dañ daan bàyyikoo tugal ñëw Afrique ñëw Sénégal ñëw ci réew mi ngir def liggéey boobu waaye li ci spécial léegi mooy fañ toog nañuy toog ca Occident mën a def loolu te duñu déplacé wu à travers euh, des TIC technologies de l'information et de la et de la communication ak tamit li nga xam ne implanté nañ ko fi ba noppi donc kon mel na ne yàq gañ doon def bu njëkk léegi la gën a yomb ndax bu njëkk bari na lu ko mënoon a lu ko mënoon a euh, contrer te teewul am nañ ci réussite ndax bu njëkk am na fi kilifa yi diine yu fi nekkoon yoo xam ne dañ daan woote woote ci diine te booba lislaam it ëppoon na doole fii fii fii mu toll nii donte léegi la jullit ñi gën a bari waaye booba la lislaam ëppoon doole te teewut tubaab yi lijjante woon nañ ba réussir loolu rawatina nag li nga xamee ne dem nañ ba implante fi bàyyi fi seen liñ fi bàyyi ba noppi nag léegi fi toll nii euh, daanaka ak ni jamono gëndaloo dafa mel ni léegi loolu dafa gën a dafa gën a yomb kon euh, ni nga xam ne noonu la gën a yomb moo tax ngay mën a gis masalan koo xam ne day dëkk day dëkk fu sore sore sore ci réew mi mën naa dëkk sax ca village wala ci àll ya te boo ko xoolee ay xalaatam ak ay jikkoom mën naa sax gën a tubaabe ñi nga xam ne ñoo dëkk biir France ndax li ko waral mooy jumtukaay yi nga xam ne fi ñu toll mondialisation indi na ko ak li nga xam ne liggéey nañ ko fi ba bàyyi ko fi su ko defee yàqu gii ma doon wax nag nga xam ne daanaka moo xaw a moo xaw a lëmbi àdduna moo taxoon mel na ne sunu yaakaar Seexul yi ñëw ci jamono te ba muy ñëw tamit dafa ñëwoon ngir sauver xettali nit ñi xamne mom lool rek ko fi taxone eh, ci dik xettali leen ci kéefaruk nasaraan dégg nga sëñ Moussa Ganaan ne dogoon ak dem gi wolof nasaraan te kon billahi ñëpp dem niiraan ngir booba doomi soxna yaa ngi ak eh, ya ca topp yëpp nga xam ne booba lislaam amoon na nit ñu baax amoon nañ fi waaye am dérive yu amoon yoo xam ay gàllankoor la woon ci nit ki defaru defaru boobu nag la cheikhul xadim bëggoon ba tax mu woote mbuure boobu ci Mbàkke Kajoor kon loolu moo tax sëriñ bi indi yoonu tarbiya mooy alhimma nga xam ne himma mooy yitte ju kawe ba mu ko indee tamit daj na ci coono yu metti yoo xam ne boo xoolee ci jasaawu sakoor am na lu wax lu mel noonu daal ne am na ci dund boo xam ne ba ma fa nekkee daj naa fa loo xam ne rus naa koo nettali sama diggante ak sama borom am naa kersay nettali ko daal di ne lu dul def def nañ ma fa métti woo xam ne tamit lu dul rocc ak ruu rek loolaa ko gën a métti te loolu lépp lii dong moo taxoon mu di ko daj mooy fexe ba num ñu xettalee ci kéefar googu kéefarug nasaraan te mit ñi mel na ne ñee tamit am nañ doole joo xam ne ñoom it dañoo taxawoon temm ci fexe ba loolu ñu mën koo def moo tax daanaka dundam gépp dundam gépp mën nga rek daf koo jaamaarloo ak ñoom tubaab daf koo ja daanaka lu ëpp fanweeri at fanweeri at ak ñeent wala lu ko ëpp man nga ne loolu lépp ci loxoy tubaab bi la nekk man nga ne nag sëriñ bi ba mu amee ñeent fukki at rek ba bi muy am juróom 75 ans wala 74 ans ba 1927 daal diggante boobu yëpp man nga ne génnul ci loxoy tubaab bi diggante exilé comme euh, Gabon jugee fa yóbbu ko Mauritanie jógee fa yóbbu ko Ceyeen Jolof mu mel ne diggante boobu yépp dafa tolloon ci dañ ko doon xupp ndax tubaab bi daa jëflante ak moom ay méthodes yu wuute da koo xupp exilé ko xupp ko euh, yóbbu ci barab yu baree baree bare bi demee ba xam ne lii mën mënta sotti mu ne na ko jéem a woyafal woyafal gi mooy na ko yóbbu ci réew moo xam ne ay wàlliwoo ki boroom xam-xam bari nañ fa buñ fa demee lii muy woote ñi ko toppoon danañ ko bàyyi ndax nangam ak nangam looloo tax ñu yóbbuwoon ko Mauritanie waaye ba mu demee yëf yi gën a doy waar mel na niñ naari gànnaare sax ñoo ko gën a gëm ñoo gën a jébbalu fi mu boo demoon Mauritanie seenu murit sax dafa wuuteek ñun sunu murit daanaka ngir gëm guñ gëm sëñ Tuubaa nga xam ne am na ci ñoom sax ñoo xam ne dañoo àgg ba jàpp ne ab murit soo ko doonee maanaam wérdu maaxuus yi nga xam ne sëñ Tuubaa da koo indi sax boo doonee murit te ko def ñoom dañoo jàpp ne loolu wërta mën a nekk nga sëñ bi ñu ñëwee moom dafa wut programme boo xam ne daf ci tënk murit bi ba nga xam ne xolam du dem ci lenn lu dul yàlla ak yonente bi mooy li mu wax ne isil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmaani suñ tubaa ne ne ab murit saa dëgg benn jubluwaay kese lay am lenn rek lay bëgg mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla lool nag sëriñ bi wut ay yoon yu baree baree bari yoo xam ne murit bi bu ci concentré woo am ci programme bu dëgër rek dana ci ag muy qasida yi muy werdi yi muy azkar yi ak ci doon di nek rek kon bi tuba bi defé loolu nga xamne xop nañ ko ba sonn dañu mujj nak soppi stratégie ndax tuba bi dañu dem ba dañu mujj xam sëñ bi ci waxin biñu soppi soppee stratégie nag mu ne ñu ne kon nañ ko xëpp xëpp gi moy lan moy yóbbu bañ ko yóbbu jaare xëpp gi moy dañuy fexe ba boyal aduna ci kawam nga xamne bu ci sëñ bi ta bu xam nañ ne ñoo détourner sëñ bi waaye nañ fexe ba ñi ko topp moom ñëpp duñ ñu dëkk ñu daal di nekkoon nañu sotti mbir mooy nañ ko yóbbu ca capital ba mooy nañ ko yóbbu njaareem biñ ko yóbboo njaareem sëriñ bi nekk fa ak ay taalibeem nga xam ne boobu ñu ngi ci capital yi di jaxasoog nit ñi ak yu baree baree bari waaye loolu lépp lañ ci jublu woon rek mooy li ma waxoon ci njàlbeen bi mooy fi pas-pas yi ba nga xam ne suñ leen mënta def ay yéefar tamit nañ yàq seen pas-pas rek nga xam ne loolu lañ ci jublu woon waaye sëriñ Touba moom xëy na suñu borom moko ko ba mu muccu muccel ñoñam motax tax mu ngi naan raamu masiri ila jurbel la dala sa chen law ayanu sirra ma fi sayri ma ram fa sayru mawtun ala man nazahu wa aza wa annahu li ibqaun wa ikram nga xam ne bañ koy yóbbu njaareem ci atum 1912 amoon nañu jubluwaay waaye sëñ Tuubaa nee na bu ñu xamoon sirru bi nekk ci yóbbu bi ñu may yóbbu jaareem bi duñ ko def mukk ndax yóbbu bi ñu may yóbbu jaareem ak des lay doon ci man ba faw te sunu borom daf ma ciy taral ba faw te ñoom de ak dee lay doon ci ñoom ba faw ak xiiroo ku ngaayo waaye loolu moo noonu la ko ci suñu borom defalee nga xam ne ci biir nekkum jaareem bi pexe mu ne def nañ ko dem nañ sax ba àgg ci proposer sëriñ bi tabax école française boo xam ne dañoo ñëw ne dañoo bëgg sa waa yi ñëw ci école ba di jàng mooy li ma waxoon léegi rek ne méthode bi gën a gaaw pour soppi jikko nit ki rek mooy éducation jàng bi ñu ubbee école bi ñëw wax ko sëñ bi sëñ bi daal di ciy wax ak ñu ko jege bi mu ko waxee ñoom ci tënk daal xalaat bi ñu mujj jël daal mooy sëñ bi nangu nañu dem jàngi français waaye dañuy dem jàngi buñ ñëwee ñu yar maanaam nañ dem jàngi ca école ba di wàcce di ñëw ci kër yi ñuy yaral sunu bopp loolu xalaatul sëñ Mbàkke Buso la moo ko xalaataloon sëñ bi nga xam ne foofu rek dañuy wane ne kon sëñ Tuubaa wane na fi nekkoon way jur wi nga xam ne ab jullit la am doomam am na responsabilité ci moom buy wane la daf koo war a yar yarul lislaam doonte mën na koo bàyyi mu jàngi àdduna mën naa dem ca école tubaabee bi jàngi waaye nag bu leen bàyyee seen lépp mooy ni ñuy li sëñ Mbàkke bu sa waxoon nañuy dem di jàngi buñ ñëwee ñu yaral suñu bopp loolu la sëñ Mbàkke bu sa proposé woon sëñ sëñ bi def ko ba nga xam ne ñi njëkk a jàng tubaab ci yoonu murit ci génération boobu foofu la ñu jàngee euh, bi loolu amee sax naaw bi am na ci ñoo xam ne sax dañoo dañoo dañoo dañoo dem nanguwu ñoo xam dara ca lañ leen di jàngal tubaab yi jàpp ne sëñ bi daf leen a influencé tubaab bi ñëwaat ci sëñ bi ne ko am na ci ñoo xam ne ñu ngi jàng waaye nag nangam nangam nangam bëgg daal sëñ bi soññu leen sëñ bi ne ko man nag li ma man mooy yebal leen ñu dem jàng waaye galeen ci ñu xam li ñuy jàng moom mënuma ko maanaam forcé leen ñu ñu xam li ñuy jàng mënuma ne ko ndax day yew day mel na yow mii rek ku la bëggoon a forcé nga làkk wolof bu muy mettee ci kon loolu sëñ bi jaar na fekk jaar na fekk tubaab yi ba tey yi yiñ jëflante waat ak moom ginnaaw bi yëpp rek ngir lool la jéem nañ ko fee jox croix légion d'honneur bu ànd ak diplôme sëñ ba nanguwu ko maanaam sëñ bi nanguwutoon a jël croix légion d'honneur bi li tax nanguwu koo jël mooy màndargam église bi ci nekk moo taxoon mu delloo leen waaye nee ñu jël na lettre ba am na ñu ne jël na lettre ba am na ñu ne jëlu lettre waaye xalaat ko li xaal lu ci man di am

mooy méthode bu am solo boobu ma waxoon mooy ñu xam ne parent yi wala boog waajur yi ginnaaw bi ñu yóbboo seen doom ci école publique ci école lay gi école tubaab yi ngir ñu jàng àdduna kon fawu ñu boole ci farlu ci seen bopp ngir yar leen yarub jullit ndax kenn ku ci nekk yonante bi nee na ëllëg sunu borom dana la laaj sa responsabilité ci sa njaboot su boobaa boo defee noonu di nga wàccoog moom yow li am solo mooy nga def li la war donte mën nga koo def moom mu bañ sax waaye yow defal li la war mooy jàngal ko yar ko xamal ko diine su boobaa dina tekki ba mën a jariñ am réewam dina it doon mu'min xaqan maanaam dina doon jullit boo xam ne dina mën a jariñ diineem ci lislaam te mel na ne loolu rek moo doonoon combat l'islam bi nga xam ne moom la fi nit ñu baax ñu fi nekkoon mag magi lislaam yi jaar ci réew mi yépp boo xoolee tàmbale ko ci El Hadj Omar Thierno Souleymane Baal Abdou Khadir Kane euh, Ahmad Cheikhou ba ci génération bi ci topp ñoom ñëpp daanaka loolu moo nekkoon seen seen seen combat mooy fexe ba tubaab yi bu ñu leen njëkk ci askan wi ndax buñ ko defee rek su boobaa bu ñu leen njëkkee ci seeni xol rek su boobaa li ñuy defar lépp dootu mën a dootu mën a sotti waaye Serigne Touba moom dafa mel ne sunu borom daf koo dimbali ci loolu ba nga xam ne moom xol yi da caa jëkk am na tubaab bu ko ma sa laaj loolu ci njaareem tubaab bi daa ñëw ne ko sama kilifa ga nekk tugal damaa yónni ci yow ngeen ma laaj la ñetti laaj yoo xam ne bëgguma cee dégg lu ma naqari Serigne Touba ne ko doo ci dégg lu dul dëgg mu daal ne ko kon de tàmbali naa naqari da ko waaye nag nañ wéyal rek laaj bu njëkk bi mooy damay lay laaj ñaata taalibe bi nga am ko kuy jublu tey tubaab bi insisté waat ci question boobu ne ko xam naa ne képp kuy jublu penku ak jullit la waaye li ma bëgg a xam mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw aju ci yow ñooñu ñaata lañ sëñ Tuubaa ne ko kuy jublu penku ku nekk rek sama taalibe la li tax ma wax ne kuy jublu penku ku ne sama taalibe nga mooy képp kuy jublu penku am na loo looy wut ci yàlla sunu borom loo xam ne boo ko sàkkuwul ci sunu barke doo ko am ba mukk loolu moo tax ma ne la képp kuy jublu penku rek sama taalibe la mu ne ko leer na ñaareelu laaj bi mooy dañ lay laaj fi ñu jaar ak yow coono yi ñu la teg ak li ñu la def lépp est-ce que dana ñëw nga fay wala déet sëriñ si ne ko ndaw de doo ko laaj lu muy xëy liggéey da nga koy laaj ka koy liggéeyloo mu ne ko ku dee liggéeyloo mu ne ko yàlla sunu borom su ma diggalee ma fayu li nga ragal dina am su ma diggalu ci yéen dara nag aw ma ci yéen soxla mu ne ko leer na ñetteelu question bi nag te loolu mooy li ma yitteel ci waxtaan ne ko ñetteelu laaj bi mooy. dañoo gis ne bi xam naa euh, ñàkkul ne kon événement bi soriwut 1918 jëm 19 ndax dane ko dañoo gis euh, benn benn stratégie boo def boo xam ne xamuñ noo ko mënee mooy bi ngay tabax jumaa ji da nga da ne nag ku nekk joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñëpp dañoo joxe ba da ngaa mujj wax ne ku joxe wutoon bàyyil ndax mbir lim bi mat na ñu lay laaj loolu noo def ba man ko ndax ñun kat. dañoo yilif réew mi di leen laaj impôt boo xam ne matul ñetti dërëm waaye mënuñ cee jot léegi yow noo mën a def ba am loolu sëriñ bi ne ko loolu de li ko waral mooy da ngeen maa njëkk ci jëmm yi ma njëkk leen ci xol yi mu ne ko loolu de dese naa leer ci man sëñ bi ne ko su ma la ko doon misaal day mel ni jaareen ji buñ ko duy woon ba mu fees dell mu ne ko ah mu ne ko yow yéen ngeen moom xott wi man ma moom li ci biir tubaab bi ne ko kon de yaa ñu gën le ko fuuf kon looloo ma ci yitteel mooy sëriñ bi sunu boroom daf koo dimbali ci loolu ba lu ab murit mel mel mel lu mën a jàng fu mën a egg moom sëriñ Touba tegal na ko ay kano yoo xam ne bu ca jàppee dana fexe ba lenn lu nekk ci xolam lu dul sëriñ Touba xulubu jumdati lazina aflahun yatawajjahat wa rabbil muslimun ay loolu nag xay na ñi nga xam ne ñoo nar a texe ëllëg ñoom la sunu borom dimbale ci loolu ba nga xam ne ñoom ñëpp seeni xol day jublu sañ Tuuba moo xam nga doon murit moo xam nga bañ koo doon sëriñ bi moom gi na loolu sax gi na moom dafa wax ne sax képp koo xam ne dañ maa bëgg rek ëllëg buñ demee ba nga xam ne ñi nar a texe kese la seeni xar di weex yow sab xar day weex tàll képp ku ma bëgg nga xam ne settewu ci kii ak kii ak kii boo xoolee ci ay mbindam buy ñaan jullit ñëpp lay ñaanal am na lettre bu mu bind boo xam ne loolu la ci wax képp ko gis lii ma bind na xam ne ki bind lii li mu yéene ay taalibe yi jébbalu ci moom moom la yéenee julli yi jébbaluwut ci moom kon kooku amul amul tejjeg seen ci loolu kon bu ñu dellusee ci liñ doon wax mooy ci wàllu googu li ci am solo mooy rek kon am na ci loo xam ne xëy na li tubaab naan long terme la waaye am na ci loo xam ne moom way jur wu ci nekk da ngay xam ne rek responsabilité la ci yow nga fexe ba sa doom li mu war a xam ci diine li mu war a jàng ci alquran nga taxawul ko ko ba nga ba mu def ko ni nga xam ne noonu la noonu nga koy taxawoo ci euh, daara yi nasaraan yi war a école lay gi leneen li nga xam ne mat na leen ci dimbali it ba tey mooy ñoom way jur yooyu ñu dox ci euh, maanaam fexe ba dugal njàngum diine wala njàngum lislaam wala suñuy valeur ak suñuy culture ñu dugal ko ci biir école yi nga xam ne ñooy jàngale tubaab donte am na lu fa nekk waaye dafa nekk nag dafa doyut dafa nekk dafa doyut ndax euh, daanaka luñ la fa xamal dara dara dara lu am solo lu dul am na ci classe yoo xam ne boo fa tollee danañ la jox ay dagg yu tuuti rek ci euh, El Hadj Omar ci diw ci diw ci diw te loolu amul njariñ waaye la am solo mooy ñu wutal leen ñu wutal ko programme boo xam ne bu solif bu am doole lay doon bu am njariñ lay doon nga xam ne boo génnee ci école bi di xam àdduna di nga xam sa diine di nga xam sa bopp ndax euh, boo xoolee fii ci école yi fi nekk yépp Sénégal dangay jàng sixième ba terminal ba am bac ba romb ko sax wala ba maîtrise sa doctorat maanaam euh, li ngay mokkal ci man nga ne lépp tubaab rek da nga koy xam da ngay mokkal Candide de Voltaire Précieuse ridicule de Molière wala euh, cahier de nu ñu koy waxee de retour au pays natal waa ji Césaire contemplation Victor Hugo buñ la ci wax yooyu ci àdduna nga mën caa tari lu bare bare bare bare te kolo la laajoon benn bayitu Masaalikul naan xamoo ci dara ku la laajoon benn bayitu Xilaasu Zahab Alaaji Maalik xamoo ci dara ila axiri ila axiri loolu nag jàpp naa ne euh, du du du fierté ci ab sénégalais rawatina ab julli rawatina ab taalibe kon li doon baax mooy fexe ba ni nga xam ne noonu la sëriñ bi bëgg ñu mel ko ñu mel noonu te loolu mooy lan mooy koo xam ne da ngay jariñ sa àdduna maanaam dangay ngay ngay nekk ci àdduna di liggéey ngir ëllëg ni ngay jariñee sa àdduna noonu ngay defee loo xam ne ëllëg tamit da nga fa jariñ eh, ñeneen kon xeetu mondialisation boobu nga xam ne mooy jëm wàllu culturel mën naa ci tënk loolu beneen bi nga xam ne it mooy mondialisation sociologique man nga ne rek euh, xeetu mondialisation la boo xam ne daanaka man nga ne fi mu toll nii fii jamono toll mooy li gën a lëmbe wala moom mooy li tas réew bi àdduna wala moom mooy li gën a jaxase àdduna bi fi fi mu nii ndax day loo xam ne day moyen bi nga xam ne moo gën a gaaw ci jàllale information ci en temps en temps réel maanaam ci instantané daal te ñu ngi koy jaaree ci ni ma ko waxee woon léegi technologie de l' information et de la communication nga xam ne société yëpp fi toll moom la ñuy jëfandikoo ci seen lépp nga xam ne système la boo xam ne mënta ñàkkati ci dara fi toll nii daanaka mën nga ne suñu jotaay bii sax fi toll nii da ciy da ciy jouer rôle bu am solo kon euh, muy benn monde virtuel boo xam ne tubaab bi ñoo ko créer nga xam ne ñoom dañoo dox ba àgg ci dañoo dox ba àgg ci xëy na seen contexte. Euh, fay fu jamono toll fu ci nekk ci diggante boobu amna na luñ ci soxla loo xam utiliser nañ ko wala bo créer nañ ko di ko jëfandikoo moo xam ci wàllu wàllu gu mu doon rek moo xam ci wàllu gu mu doon jamono ya muy tàmbalee ci 1950 wala jëm 60 ba muy doon arpanet ba bi muy egg ci internet ba muy dem ci news group ba egg ci World Wide Web yooyu yépp fu mu ci doon rek ay étape la yu wuute yoo xam ne ñoom dañuy jëfandikoo technologie de l'information et de la communication yi waaye xëy na pour des fins yoo xam ne ñoom xëy na dafa am dañu dañ cee am objectif maanaam ñoom boo xoolee doonte xëy na euh, seen pas-pas sunu pas-pas bokkul bari na ñoo xam ne amuñu diine tënkuwuñ ci dara waaye léeg-léeg sax am na ci wet goo xam ne ñooñu fii tane ci xam notion de temps ak nu ñuy jariñoo nu ñuy jariñoo seen dund ba noppit créer ñu ko sànni ñu ko ñun ñu ci sànq sunu waxtu boo xoolee daanaka mën nga ne àdduna bi Euh, li ko tas loolu bokk na ci mooy yi xew léegi ci yi xew léegi ci wàllu internet yeeg réseaux sociaux yeeg yu bare bare bari su dee africain bi muy sénégalais bi léegi sax muy taalibe bi da ngay dem ba dëgg-dëgg sax ay devoir yi nga xam ne moo ko war diggam ak boroomam mënatu koo def léegi ndax léegi jumtukaay yu bees yi xew léegi jàngum xasida gu egg mënatoo koo def léegi ku durus sa xasida téléphone baa ngi sa wet ba nga xam ne dangay ngay boole whatsapp bi wala facebook bi ak jukki bi daanaka concentration bu mat mënoo koo mënatoo ko am léegi loolu nag ci jeunes yi la gën a la la la kiyee daanaka mag ñi am nañ tawfeex yoo xam ne euh, ñoom yàlla yàlla da leen a dimbale ba am na ci yoo xam ne mënuñ koo xam sax far bu ñu ko bëggoon mënuñ koo xam waaye ñun ñi nga xam ne ñoo toll ak moom nag ñun ñoo am problème mooy ñun la seytaane sonal ba nga xam ne léegi daanaka xasida gu jaar yoon mënatoo cee concentré wu wér de maaxuus mënatoo koo def normal te yooyu yëpp lenn lu ci nekk boo jàngee Masaalikul Jinaan sañ Tuubaa daf lay wax ne booy tudd yàlla comportement yi nga war a am dangaa war a teewlu dangaa war a concentré wu waroo wax ak yu baree baree bare waaye léegi dafa mel ne jumtukaay yi daf ñoo yombal li nga xam ne moo araamoon lépp daf ñoo yombal li nga xam ne moo yàq pas-pas yëpp daanaka léegi man nga cee yàq dundub doomu aadama man nga cee defar dundub doomu aadama ci lu dul dëgg loolu nag léegi dafa dafa dafa jafe-jafe na boo xam ne ñun ñëpp dañuy jànkoonte ak moom ñun ñëpp a koy jëfandikoo waaye ñun ñëpp tamit ay victime lañ ci yoo xam ne daanaka ku ci defarul dëgg-dëgg wala ngay def introspection di delloo si sa bopp dëgg-dëgg wala nga am kilifa goo xam ne it moo lay teg ci yoon dëgg mën ngaa sànq daanaka mën nga ne fi toll nii mbokki taalu yu bare bare bare bari Facebook ak WhatsApp ak nangam yàq na seen àdduna daanaka dara mënatuñ koo def normal buñ toogee ci kuréel yi di kuréel ñu ngi ci téléphone yi di xool donc kon lu am njariñ la certes waaye nag ci biir njariñ loolu tamit da bari lor yoo xam ne naqari naa mucc koo xam ne nag mën nga koo jëfandikoo yem ca njariñ ya ba doo àgg ca lor ya alhamdulilah waaye daal néew na moom mu am néew na néew na muy am ci ndaw ñi ndax ni ma ko waxoon ci njëlbeen bi léegi ndaw ñi da cee bari ñoo xam ne am kilifa sax seen jafe-jafe lay doon ci moom rawatina ci sunu sunu sunu milieu yi ba ngay diggante bi ngay jébbaloo ba bi ngay soli baylaat ba bi ngay jàngi xasida tàmbalee kuréel diggante bu gàtt ñaari at ñetti at nga jàpp na yow mii kat egg nga fa mag ña eggoon bu la say way jur di wax doo leen faale ñi la jiitu ci yoon wi daanaka dangay ngay concurrence ak ñoom loolu it lu fréquent la lu xew la léegi te it wax dëgg yàlla euh, du du du jikko yi murit du murit moom liñ ci xam li ñu sëriñ bi moo dina rek boo nekkee ndaw da ngay am kilifa wet ñi nga xam ne ñoo la mag loolu rek mooy mooy mbir mi te loolu lu simple la waaye nag léegi man nga ne ku tàmbalee jàng xasida boo kuréelee ñaar yoon sol baylaat bu rafet daal di jàpp ne fi mu àgg nga booy nuyoo sax cati baaraam ngay joxe di nuyu sa kilifa daanaka di xaar mu sujjootal la te loolu dafa bari nag rawatina ci jàngkati xasida yi nga xam ne ay ndaw lañ ci ñoom la gën a bare ku ci daaj yoon mu neex saalihaat yi ñëw nangam ak nga jàpp ne fi mu ne moom yaay kilifa bi te loolu foo fekk koo xam ne it danga nga koo war a màggal sëtu sëñ Tuubaa la nga jàppee ko sa bopp loolu it nga jàpp daanaka la yàlla xam doy na ni ñuy jëfalante daal léegi mel na ne bokkut ak dëgg-dëgg li nga xam ne noonu la ñu sëriñ Tuubaa jàngaloon ci ñu mel ko moo di rek ab murit moom aw dàll la war a doon maanaam da ngay doon wa agrina ya rabbana bil xidma lil muslimina fuñ la fekk dangaa war a doon jaamub murid yi serviteur des murid nga war a nekk loo gën a kawe gën a mën a am gën a war a ami teggin gën a war a mën a toroxlu gën a am kilifa gën a jox mag ñi cër lii dañu sëñ Tuubaa jàngal kon loolu jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la ak it ñu wut maanaam programme boo xam ne it dañ ciy tënku ab murid dafa war di jàng xasida ab murid dafa war a jëfandikoo werd wi nga xam ne moom la ñu sëriñ Tuubaa indil te bu ñu ko defut kenn du ko defal sëñ Tuubaa ba koy def ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko jox jëlee ko ci yàlla sunu boroom sëñ Tuubaa daal di joxe ndigal ne digal naa képp ko aju ci man góor ak jigéen nam ca waxee sax nga xam ne euh, dafa àtte lu bari ci jamono ndax léegi yu bari day am dañ naan la jigéen warta werd wala xale warta werd waaye moom boo xoolee na mu bindee ci lettre bi sax loolu da caa insisté wane ne góor ak jigéen ñëpp ko war a def dane maa ngi digal képp koo xam ne aju nga ci man góor ak jigéen li feeg yaa ngi dund deel jëfandikoo werdu wi muddata muksijin wa muddata muksijin na loolu la wax kon képp koo xam ne jébbalu nga doon taalibe suñ Tuubaa suñ Tuubaa jox na la digal ci ngay jëfandikoo werdu Maaxuus soo demee ba di ko def tamit ba fas yéene koo def tamit danga dafa am ay charte yu ñu ko war a defee mooy dangay dem ci koo xam ne am na sañ-sañu joxe werd wi nga laaj ko ko mu jox la ko nga dem defe ko moo xam sa sëriñ la moo xam sa jëwriñ la mel noonu ba tey tamit noonu la diglee ci ku aju moom ngay góorgóorlu ci di jàng xasida yi ndax loolu màndarga la muy wane sax aju ci sëriñ Touba te it mooy li nga xam ne moo mën a dox sa diggante ak sëriñ bi bu doon bu ñu ko mënoon wax mooy connexion bi nga xam ne mooy dox sa diggante ak sëñ bi ngir nga gën koo jege te mooy li nga xam ne moo la mën a busal ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon wax léegi te boo koy def tamit kon nga bàyyi xel ci défi bi ñu doon wax léegi ci wàllu euh, euh, sociaux maanaam ci wàllu euh, réseaux sociaux yeeg ci wàllu technologie bi ni ñu ci doon wax léegi maanaam fexe ba doo ci sànq sa waxtu ni ñu koy waxee léegi ndax sëriñ bi wax na ci masaalikul jinaan nee na li gën a cher ci doomu aadama bi mooy noyyi gi muy noyyi su ko noyyee ci neen maanaam ci loo xam ne du ak mooy yàlla de maanaam noyyi ko ci neen nii rek perte na ko waxuma laak nag di ko noyyee ci ci ci mooy yàlla daal ni ñi nekk ci biir bàmmeel boo leen woon tey buñ ñëwoon liñ gën euh, liñ gën a bëgg mooy boo leen laajoon liñ gën a bëgg dañ naan la mooy nañ dellu àdduna donte benn fraction seconde la ñu tudd yàlla sax suñ neen loolu mooy seen mébét wala seen rêve bi gën a rëy mu ne la kon yow mi nga xam ne yàgg ci àdduna nag na nga gaaw profité ci sa dund gi la suñu borom jox fas yéene def def ci lu baax boo xoolee sëñ tubaa loolu ci la daan yar ci la daan tarbiya dégg nga sëñ Abdulaat naan nelawe guddi ginnaawam la ko nit sañ maanaam kër sëñ Tuubaa amutoon waxtu 3 heures du matin waxtu wu ci nekk sëriñ bi da koy woote waxtu wu ci nekk ñi ngi liggéey kon ab murit noonu la war a mel mooy waxtu wu ci nekk rek war naa am lu muy def normalement murit moom waroo ko laaj looy def mu ne la dara loolu moom du wërta nekk mbirum murit saa su ci nekk rek war lu mu war a def ci diggante liggéey jàng xasida jaamu yàlla waanaam liggéey ak jaamu yàlla rek ndax liggéey bi ci yoon wi la bokk te boo xoolee jumtukaay yi bokk na ci li nga xam ne léegi day day yàq loolu day yàq maanaam sa yëngu bi nga war a yëngu ci àdduna ndax yëngu ci àdduna sëñ Tuubaa ko jàngale sëñ Tuubaa ko digle boobu te ab murit ngir nga doon murit saadex da ngay jëfee ndigalul sëñ bi charte murit saadex deuxième bi mooy jëfee ndigal te sëriñ bi bi ñu tabaxee jumaay njaarim ba noppi waxoon na ci lu mel noonu ci wane ne su ngeen amatee soxla na ngeen di dem faste xànceeg morom daan ne ndax su ngeen liggéeyu da ngeen euh, danañ leen yilif te ku la yilif sañal la te yàlla nay ka la war a sañal booba mooy bi ñu cotisé ba noppi ba joxe li ñuy joxe ca la waxee ne bépp projet bu ngeen amati rek na ngeen koy taxawalee ci anam yi ci la waxee woon ne Euh, liggéeyi leen liggéeyi leen liggéeyi leen mu kàllaf mu ne boo liggéeyu lépp loo def ba am rek moo sàcca yam te meen mu kàllaf war ko sàcc maanaam li mu bëgg li mu bëgg a wax foofu rek mooy am am liggéey moo koy may waaye buñ jàpp ne rek dañuy dañuy yëg dañuy dañuy dañuy dañuy ni muy ni muy amee léeg-léeg ci ñenn nag nga xam ne ci crise yi jafe-jafe yi nga xam ne moom la jeunes yi dund ci la bokk moo di ne yow jàpp na ne rek àdduna yépp moom buñ la laajee looy liggéey man nga ne man sama liggéey mooy durus te loolu mas sa am ci jamono yu ya sëriñ bi nag mag ñi toppoon sëñ Tuubaa ñooñu dàq jaamu yàlla ñooñu dàq dàq jàng xasida waaye kenn ku ci nekk da ngaa amoon i tool ak i daara yoo xam ne ca ngay euh, ca ca ngay ca ngay ca ngay ca ngay ca ngay pastee xànc ak borom ja wala boog ca ngay yëngutoo loo xam ci nga mën a liggéeyalee sëñ Tuubaa kon ñaar yooyu mënut a ñàkk kon nañ xam ne njàngum tamit teewuta am métier moo xam ne dañ ciy yëngu ndax métier moomu mooy tax nga mën a gore ci sa bopp nga mën a moom sa bopp métier moomu mooy tax tamit lu sëñ bi woote lu ne kenn du da ci ëppale ndax bari na fi loo xam ne ci yoon wi loo xam ne man nga ne ala ko joxe ak lum néew néew jumaay jaare ji xoolee sëñ Bay buñ tuddee ñaar ñett mooy ñeenteelu ki ëpp lu mu joxe te sëñ Bay Sarr buñ dee wax ñii rek situation am demewutoon noonu waaye yàlla da ko dimbale woon da caa sasoo woon ne defe naa dane semaine bu ne wala bés bu ne am na daal nangam junne dinaa joxe dërëm noonu la doon def waaye la muy néew néew néew néew ndeke bañ wàññee bañ defee sëñ Isaa Jenn sëñ Amsatu Lo sëñ Cheikh Ibra Fall moom moo ca topp nga xam ne mooy ñeenteelu nit ki ëpp lu ci def loolu day wane ne rek tamit addiya lum néew néew ni am solo mooy rek na sell sa yéene rafet te mu te mu jugee fu lew ak lum néew néew bu yàggee rek dana bari li am solo mooy nga fonk ko rek kon loolu moom la mag ñi doon def nga xam ne daawuñu sant seenu dund kon ñun tamit nañ fexe ba jumtukaay yu bees yooyu du dox su di mu dox suñu du dox suñu digganteeg suñuy warteef suñu borom suñuy warteef ci suñu digganteeg suñu sëriñ ak suñuy warteef ci suñu digganteeg way jur ndax àqi jur tamit lu ñuy laaj la ëllëg te sëñ Touba bokkoon na ci li mu gënoon a fonk diggante nit ak wayjuram daanaka man nga ne xawuta nangu sax ku jébbalu ci moom ci lu dul way wayjur nit ñëw na ba tàyyi ci moom bëgg a jébbalu mu delloo la def ko ay yooni yooni yooni yooni yoon nga xam ne moom dafa jàpp ne ak lu mu man di mel rek dangaa war a fexe ba déggoog say way jur ci lii ba noppi nga xam ne yow war ngaa mën a wane image bu rafet boo xam ne doonte say jur nekkuñu ci yoon wi sax yow mi nga xam ne da ngay ndaw te nekk ci yoon wi war ngaa wane melokaan woo xam ne di nga tax ñu bëgg ndax léeg-léeg bari na ñoo xam ne dañoo jàpp ne diw dafa contre sëñ Touba wala diw dafa contre yoonu murit xëy na bariwut bu amee bariwut lii am léeg-léeg mooy ñun ñooy mel melokaan woo xam ne du ñu mu ba kooka du jublu yoonu murit loolu dafay am lu bare bare bari ci murit yi ndax suñuy comportement suñuy doxalin waaye li normalement li sëriñ bi bëgg daal ci ab taalibe mooy foo nekk fu nekk rek rawatina ñi nga xam ne ñi ma ko waxee léegi xëy na da ngay jàngkatu xasida wala da ngay solkatu baylaat wala da ngay na loolu boo nekkee ci barab ambassadeur nga fa na xam ne yow fii yaa fa représenté sëñ Touba ci yow la ñuy jàppee sëñ Touba ci yow la ñuy bàyyi sëñ Touba responsabilité boobu bu ko ci kenn ku ne amoon rek yaakaar naa ñu baree baree baree bari danañ jublu sëñ bi ndax sëñ bi moom lu yomb la moom boo ko présenté nit ci présentation bu jaar yoon rek moom ku mu man di doon ku ci nekk ku dul ku ab ab xolam lëndëm dana ko nangu loolu it jàpp naa ne lu mat a bàyyee xel la ba tey tamit ñuy bàyyi xel ci jumtukaay yi ma doon wax nga xam ne ci défi mondialisation yi la bokk mooy yi nga xam ne dafa araam ci ñun ak yi nga xam ne dafa dagan ci sharia mooy jumtukaay yi soo ko dee jëf soo ko dee jëfandikoo ñun ñëpp dañuy dal saa su nekk nga ubbi sa ordinateur nga ubbi sa machine di ci gis image yoo xam ne yow lii daganul ci yow nga xool ko daganul ci lislaam waaye da koy fàtte sax ndax tàmmagoo tàmmakool lu bon waaye bañ fàtte ne sëñ Touba woon na sëñ Daam Abdourahman loo ne ko lu bon bu ko àdduna bépp ku doon def tamit lu tax mu baax ne ko waaye nag nit ñi tàmma jëf lu bon day dem ba dañ koy mujj miin waaye nañ xam ne nag luñ ko miin miin miin du wàññi dara ci araam gam araamoon kon loolu tamit nañ koy bàyyi xel ñu ñu koy jëfandikoo saa su ci nekk ñu koy gis moo xam ay publicité la wala sax sunu statut WhatsApp yi ñuy xool léeg-léeg soxna soo xam ne ni la lislaam wax ci moom xool gi nangam ak nangam am na am na ay limite waaye ba léegi fi toll nii boo xoolee jumtukaay yi dafa ñoo yombalal loolu da ngay xool profilu koo xam ne dafa xaram ci yow wala ngay xool statut wala ak yeneen yoo xam ne dama koo jëlal la yàlla xam dana kon yooyu tamit bu ñuy jëfandikoo jumtukaay yi tamit nañ koy bàyyi xel wala loo xam ne it lu war lu war a nëbb la maanaam secret nga xam ne secret lu am la waaye fi mu toll nii ñun léegi dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne lu ñu waroon a denc la ma jël ko transféré ko sëñ Abdourazaq sëñ Abdourazaq transféré sëñ Mohamed mu yóbbu kee mu yóbbu kee yu mel noonu léeg-léeg noonu dañ koy sawar lool te amaana mën naa doon loo xam ne sutura la war a nekk te yonente bi nee woon na képp ku suturaal ab jullit ci àdduna ëllëg suñu borom dina la ak li ñu transférante tamit nañ koy bàyyi xel na doon loo xam ne lu am njariñ la lu lay jariñ yow mi koy def di jariñ ka nga koy ka koy jox kon yooyu tamit jàpp naa ne lu am solo la tegit mu doon loo xam ne it taalibe bi bu demee ba ciy dugg na doon loo xam ne na ca fas yéenee jariñu ndax njariñ ya ma nga ca moom lu am njariñ ma nga ca waaye tamit na dem ba la Cheikh Ibrahima waxoon rek ci yoonu ci yoonu murid ne roy ak romb lu fa baax lu mu fa mën a jariñoo na ko jël loo xam ne yoonam nekku ca nag la yonente bi ne moom min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa la yaanihi bu ca yoonam nekk kon lool it nañ ko xam yi nga xam ne it wax ko dafa dagan ak wax ko dafa xaraam nañ xam ne bind gi ak lii ak xool gi liir gi atte boobu rek lay am masala ni ma bëgg a wax mooy léeg-léeg nga gis ñoo xam ne lañuy ñuy bind ak la ñuy wax buñ ko doon atte boo ko doon wax tey maanaam liñ bind ñemewuñ koo wax ci waxin lañ doon bind soo leen ko wax la woon luñ ko ñemee wax yu mel noonu nañ xam ne kàddu atteb kàddu ak atteb bind ak atteb liir daanaka yëpp yëpp benn la te yooyu ñu ci bare bare la ñuy nii di fi xam nañ li may wax kon yooyu tamit nañ ko ci moytu ak yi nga xam ne yëpp rek euh, mondialisation kii boobu mën na koo indi ci ay défi de mondialisation sociologique boobu mën na koo indi ci ay lor yoo xam ne baaxul